fas yéene dikk ak yéen ci seen xikmatul mi bu ñu leen baaxoo andil bis bu nekk ci kàttanul yàlla ak ndimbalam ak tawfiixam seen mbokk Saliou sedd di leen ko defal ñoo ngi leen di joxe xikma bi fii ci mahad xikmatul yawmi li tarbiya al islamiya wa taalim markaz Cheikh Mouhamadoul Mourtada nekk Thiès cité ouvrière parcelle numéro 31 téléphone 77 633 77 56 tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo te mooy wéyale li nu tàmbali woon fan yi te mooy al himma al aaliya te mooy yitte ju kawe te di ci joxe ay misaal ak jàngat ci sunu yaakaar al cheikh al xadim xadimu rasul mi nga xam ne nii kenn mas a dégg ci bindeef yi ku ko gën a kawe yitte loolu moo ko may lépp lu mas a am sëriñ Tuubaa yitteem ju kawe waxtu wu nekk Cheikh Mouhamadul Mountakha daf koy euh, faral di wax ci ay waxam di wax ne sëriñ bi moom yonent yebu ko malaayika yebu ko foofu la yitte ju kawe mën a yem ah dangay seet koo xam ne ni yonent yebu la malaayika yebu la foofu la yitte ju kawe mën a yem Cheikh Mouhamadou Mountakha day wax ne sëriñ bi bi mu fi nekkee ba biñ ko noppee gis ci boromam rek la nekk nekku fi ci leneen di baagante yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jaamub yàlla tey liggéeykatub yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa loolu moom fees na dell ci ay mbindam abdullahi wa xadimi rasuli moo tax sëñ bay jaxate way ko ca wayam yu teddee ne ko yàllaa di sab soppe yónneen baa di sab xaritit foo toll yaa ngi liggéeyal kii di jaamu kële boole ko yitte ju kawe nag yoo xam ne ni kum mas fekk ci yoonu yàlla eh, bëtam jéggi na la dana aw ci ay tegg yi roy la romb la nis tuuti dootoo ko xamal dara te moom dootu umpaleete ci yow dara ba nim sësee ci boromam rek kon kooku may Cheikh al Xadim démb agsi naa ci a imal arbaa ni mu leen royee ba far jiitu leen tey ma agsi itam ci borom ngir yi nga xam borom borom borom tarixa yi nga xam ne nii itam sëriñ bi loolu lépp ay jaar-jaaram la yoo xam ne ay maraaxil la marxala bu fa toll dana fa def lam fa war a def ca nam waree ca nam gën a rafete borom daal ko koy weesale mu jàll ci leneen ni mu waxee woon démb ni ma waxee woon démb ne dafa bind ne samay sëriñ mooy borom ñeenti ngir yi tey it dafa wax ne samay sëriñ mooy Euh, ñetti ñi nga xam ne nii euh, ñoom la seeni tarixa gën a fees bokk muy Cheikh Abdul Xaadir Cheikh Abdul Xaadir Jaylaani Abul Hasan Achadali yi ak Cheikh Ahmad Tijaan dafa wax ne machaaiq yi sayiduna al Jilaani maahu Tijaani samay sëriñ mooy Cheikh Abdul Xaadir Jaylaani ak Abul Hasan Achadali yi ak Cheikh Ahmad Tijaan kon ñooñu fii dafa bind ne ñooy samay sëriñ waaye déglul itam fa mu mujj ñoom daf leen a liggéeyal ba làq seen gërëm bindal ko boppam wax ne radiya anni ji sibtahul jilaani alayhi ridwanullah si alaani cheikh abdul xaadir jilaani di gërëm na ma radiya anni sibtahu abul hasan alayhi ridwaanu yu xalidul hasan abul hasan ashadali yi gërëm na ma radiya anni tijaani alayhi ridwaanul mubidil jaani Euh, cheikh ahmad tidiane it làq naa ngërëmam yemut foofu sax mu ne xulafaal arbaxa gërëm nañ moom muy saydna abou bakar saydna omar ibnu alxataab saydna osman ibnu afan ak saydna ali ibnu abi talib radia anni xulafaal arbaa usuri al muqarrabin al mutbaa euh, taabiina yeeg ñëpp gërëm nañ ko moo tax mujj nag ne man daal ku ma gërëmul sax du ma saf ndax yàlla suñu borom tabaraka wa taala gërëm na ma am naa gërëmul yàlla man la mu na lam yakun an yarda fal karim radiya an lay sa yarim gërëm na ma gërëm loo xam ne nii dootu dagg mukk loolu nag yitte ju kawe rek moo ko may mu dema dem ba bindal boppam ni ma ko waxee ne du wax mukk lu mu bindut wax ne suñu borom jox na ma lu faaw xa lam joxoon Cheikh Abdul Xaadir Jaylaani gannaaw bu ma ko defee sëriñ liggéeyal ko ba na ma ba gërëm ma am naa lu kawe lam am am naa suñu borom jox na ma itam lu kawe la Abul Hasan Achadali yi amoon jox na ma lu kawe la Cheikh eh, Ahmad Tijaan yi amoon gannaaw bu ma ko liggéeyale def ko sëriñ ba mu gërëm ma li xuttama faaxa bihi jilaani alayhi ridwanullasi alaani ilaya xuttama bihi abul xasan faaxa bi xidmati nabi jaddil xasan tamamtali bi ma bihi tijaani faaxa wa kuntalee bil marjaani kon noonu lay toftalee ay mbiram waxtu nekk loolu lépp nag yitte ju kawe moo ko ko may rikkwaay ñun ñi nga xam ne ay taalibeem lañ nañ roy Sëriñ Tuubaa ci yitte ju kawe duñ àgg fa duñ duñ mel ni moom waaye nag eh, taalibeeb jàmbur buñ buñ buñ gis ci yoonu yàlla nañ ko jéem a raw ni Sëriñ Tuubaa di jiitoo eh, ku mu doon ci yoonu yàlla ba wax ne wa fi sabilillahi lan ujaara yoonu yàlla awma cib nawle kon yàlla na ko suñu borom tabaaraka wa taala fayal te dimbale ñu ci moom it ñu kawe yi te ñu nit ñoo ngi sant mbokk jullit ak mbokk taalibe yi ci jàppale gi ñuy jàppale daara Hikmatul mi lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir di sant mbokk yi nga xam ne ne yëpp ñoo ngi ciy def seen dara ngir liggéey bi jëm kanam di waxaat na ku ci tàbbal sa addiya tamit na yónnee ci whatsapp bu numéro daara ma ci secrétariat bi bu ko defee nga bind fa wala nga vocal fa ne yow la yaa yaa dugal nangam ci numéro bi ngir nangam ndax ñu mën koo comptabiliser